allo asalaamaaleykum man la Boubacar Sagna président directeur général euh, BDS groupe waaw donc nag ñu ngi wax ci loi yi parce que loi yi tamit yàgg nañ ci wax am na ñu sens euh, plusieurs fois di rencontre di dem ci rencontre yoo xamante ne nit ci ak ñi déglu ci côté loi yi yàgg nañ leen wax que ni loi yi dafa cher Sénégal boo xoolee boo xoolee train de vie sénégalais yi ñu ngi sonn te loi yi moo leen sonal lu tax loi yi sonal leen parce que tey da ngay jël benn exemple. nga jël euh, benn quartier bu mel ni Parcelles Assainies ñu ne la deux chambres salon deux cent mille ñu ne la euh, studio cent mille la cent cinquante mille euh, tey ñan nit ngay gis yoo xamante ne am nañ pouvoir d'achat bu leen mën permettre ñu mën dund ci situation boobu nag c'est très compliqué nga jógee foofu noonu boo xuusee tuuti nga dem côté Ngor Almadies ak yooyu noonu deux chambres salon ça tourne entre deux cent cinquante trois cent mille famille bu war a dundee deux cent cinquante mille ci logement. ci loyer kooku noonu euh, salaire bu nekk ci kër googu ñaata la war a toll loolu dañ ko war a xayma mais Sénégalais yi sonn nañ sonn nañ trop sonn nañ trop euh, te nit boo musta xiif doo mën a xam kuy xiif lu muy sentir mais location cher na Sénégal te état mu ngi ciy seetaan di kon na di ci seetaan ngala yàlla bu fekkee dañuy génnewaat beneen loi ci location bi na am suivi même de surfaces corrigées wax nañ ko fee ji noonu mais am na toll fenn foo xam ne mënoo def surface corrigée mais lépp luñ ci munti teg mu demaat ci pourcentage comme bu njëkk ba 30 pour cent 25 14 pour cent yu noonu nañ na na am suivi bu amee suivi rek vous allez voir que ni population dina ci gis boppam mais fu mu nekk nii population baa ngi souffrir ci loyer te loyer mu ngi sonal population bi euh, amuñu contre ñun amuñu contre dara contre les les bailleurs. on n'est pas contre comprendre nañ leen ah quatre-vingt pour cent da dégg euh, dañoo leb banque dañuy fay banque oui da ngeen leb banque da ngeen di fay banque état na trouver beneen solution bu fekkee ni que supposons yow da nga war a rembourser en dix ans ñu yokkal la plus quatorze wàññi la sa coût bi nga xamante ne moom nga war a yokku moom nga war a joxee ci euh, ci banque bi. mais tamit ñoom eh, bailleurs yi tamit am na leen loo xamante ne d'accord nañ ci di nga gis bailleur boo xamante ne rentabiliser na këram retour sur investissement am na ko pendant des années et taxul mu wàññi kon nag loolu yëpp boo ko gisee suivi moo amul ñun la chance de d'aller partout le monde te xam ku loyer lan la mais état moo jàppalewul encore une fois sa population parce que cooli cooli yëpp boo demee après lépp ça tourne quoi état moo jàppalewul sa population bu état jàppalewul population population du sonn les logements sociaux dont il parle bu ñu waxee logements sociaux ñoom ak seen i ñoo ciy nekkat encore et ñoom nekkuñu euh, nekkuñu ci classe sociale boobu noonu donc ça va très compliqué moom moo tax ñun ñu ngi koy wax te juguñu ci loyer ak suuf dina mës a taal Sénégal c'est parce que sénégal yi sonn nañu ci fayum loyer benn néeg nga fay ko quarante mille benn néeg nga fay ko soixante mille néeg ak salle nga fay ko cent cinquante mille. ay waay nga la yàlla nañu xool loolu loolu métti na jàng xale yi ñëwagul dund ñëwagul te dund boo xamante ne dépense mosut am retraite kon état na jugaat encore taxaw pour jàppale doomu réewam pour xam ni que ni équilibre social la ñu xool ni nga xamante ne ñoom ñooy casse c'est les bailleurs ils sont minoritaires nañu waxante dëgg parce que di nga gis benn bailleur il a dix maisons donc ils sont minoritaires kon état na jéem a xool bu fekkee ni que ñoom dañoo am ay traites yu am au niveau des banques état xool nan la ñuy prolonger état moo ci am droit moom mooy loñ loxo ñëpp pour ñu def ko mais nga la yàlla lépp lu fi amaat encore comme li may wax ci décision na am suivi c'est très important